li yàlla bindee mhm. mooy foo mënti ñëw mhm. lu mu metti metti lu mu neex neex wala lu mu naqari mhm. la ma xalaat naa ko wax li ngeen fi waxee bu ngeen ko bëggee am da ngeen ànd doon benn gis nga Sénégal Dakar dix la senegal nous sommes treize millions am lu ci représenté bu leen jàpp mukk nag senegal mën naa dox sans Ouakam rek rek rek mën naa tere dox Sénégal dangeen di fexe mel ni ñeneen ñi mel ànd doon benn kii jiitu kii topp ci na ngeen di jiitoo nag ak na ngeen di toppante kooku seen organisation interne la imaam ñu ngi lay ñaan ñu parce que li ñu wax li ñu wax ni wakaam soxla na dëgg la feneen ak feneen soxla na dëgg la waaye teraanga fi muy njëkkee kooku yow yaa ñu ko gën a xam mooy fu jàmm bi ñu fi ñëwee léegi. Mhm. dem naa ba ci maire bi. Mhm. ñaan ko na des ci maire ba. Mhm. ñi ci des mooy ñi nekk fii. ma ñaan leen nañ des fi ñu des. ndax bu ñu dajee woon xëy na moo nañ fa am loo xam ne du ñu neex. imam ñu ngi lay ñaan nga dimbali président Macky Sall ci njaboot gi lépp lu ñu mënti ànd juboo président xeeb na ko li mu bëgg mooy ñoom ñëpp ñu ànd nekk benn bu boobaa la nga xam ni Wakaam soxla na ko bu ngeen doonee benn say boobu nag lay gën a neex li yéen bu ngeen tasee waa Ngor doon benn mhm. wala waa Parcelles Assainies doon benn mhm. bu état di joxe mhm. bu nekkee la muy joxe matul ci ñu doon benn la koy yóbbu c'est comme ça que ça marche dans tous les pays du monde yàlla nag dafa ma nattu may ma nekk ministère de l'économie et des finances donc xam naa am naa idée ci nañuy séddale am naa idée ci ñuy organiser mais ku planifié wul programmé woo doo exécuté kon ñu ngi leen ñaan ngeen doon benn